léegi sept place gis nga sept place bi xoolal ndar la yebee ndar sept place bi ndar la yebee sept personne complet départ wut si ndakaaru mais waroon na am ay kili waroon na am waroon na jaar ci benn ngénte boo xam ne par exemple mi ngi amoon ci côté Sagata dégg nga wax bi léegi bi mu déparé ndar nag di teg xoolal teg ci biir di daw mille ko damit cette place bi mille ak ko damit rek teg ci biir ratatatat sëfoor bi cuqu premier xaaj waj premier wiraat ba roob ko mer ba ca fasu malaw mo fam ni rek dam wi rek tak tak tak wut jégg raay ba bum bum jégg do dan ya xarit dep agna na ba sagata tourné waat départ nag war a tegu wat nak ci kebe mer bi pour wut ci nak dakar rek khatar xattar bi ko yoon tok de nga mam dit ci la xàttar bi ko rek fofu la baye dekk yo ya. ñom tobbe ak ñom jabe ak ñom gaddaf ak ñom xal mbaan ak ñom kàndala ak ñom tuube ak ñom guyot ak bel la xor ak ñom ndaat ak ñom jalor ak ñom jeng jaw ñom xasim ak ñom njoñoo ak ñom dagantu ak ñom tuklu ñëpp mu balen fa ne polok na yëm bir Kébémer rek tegaat ci bir jël route national bi premier virage mu dam koor ne deuxième virage xaaj troisième virage bi dégg do dal karak wicc nag wi traversé mu ne ko peep bi muy déwee rek yam ci ëkku garab goo xam ne toll ne na ndar ne ci ëkku garab gi xang oto bi xalan ko sept fois eh, ëpp de xalan ko sept fois ëpp na oto bi xalan ko trois fois pneu yi téen ci kaw di roulé naan nii pneu yi naan wër am ci génn góor gu màggat goo xam ne làq na quatre-vingt-quinze ans xoolal moom dañuy bëxër ñett ci biir oto bi tël pare-brise bi ni ko kur fañ jël ne bëxër ñett génn xoolal fekk fi moteur cette place bi tege mu ne jëkk moteur bi yanu daal ne alhamdulilah moo jotee saa walis wi xam nga waa ji waa ji daa ragal guddi waa daa ragal guddee ragal guddi bay bëgg dee te moo dàq dox guddi benn bis muy doxi guddi am benn rakkam bu jigéen boo xam ne rakk ju jigéen ji presque boo ko xoolee rek poids am mat na quatre-vingt-dix kilos moo xam ne ni mu tol rakk ji bàyyi ba waa ji doxi ba rak ba mag ji doxi mu dem dugg ci xoolal ci néegu ci néegu mag ji mu dem xoolal summi ko ba set weec daal dem ci diggu lalu waa ji daal fay jaaxar nag tëdd xoolal dindi piilu lampe baak almet yaag briquet yaag yëpp lu fa newoon luy taal rek mu dindi ko denc waa ji ñëw bi waa ji ñëwee ay 4 heures du matin waa ñëw daal di ubbi bunt bi bi mu ubbee bunt bi daal di ñëw daal di dugg bi mu duggee lamb lamb lamp bi lamb contact bi fekku fa dara mu làmb taatu lal baag làmb turwaal yeeg yëpp gisul briquet gisul dara mu daan ne xaaral naa fàqum ragaju xam nga fàqum ragaju ca mag ñu njëkk ña mooy agsi rek ci lal bi plongé ni mu nee na agsi rek plongé ni mu agsi bay bëgg a plongé ci lal bi yam ne am na ku tëdd ci lal bi mu yam ci ab tànk mu daal di jàpp waa ji jàppee tànk bi xool daan ne eh kii kan la eh, eh ak ma ñàkk sama ndey barke sëriñ moo eh ma fontan ah. mais kii kan la mais yow laa eh fonto mais yow laa waxal moom kii kan la di làmb eh xoola ak barke sër ah, non bon mais waxal jël mais yow la kam ak ma billaay xoola billaay dama lay noo wax yow la gis nga billaay dama lay rey de di lambatu di lambatu baksi ci deun ndaw si xool lamb fi wén yi placé bim dajé ci wéri ko eh mais fils ki kala yow eh mais ki kala way bégé